ngeen a yi ngeen ñëw fi fii mbedd mi moo jëm directement euh, fi nga xam ni euh, mooy hôpital Dantec ngeen booy ñu ngi ne Chef. Rồi. Hãy subscribe préparé wu di ko taal te ànd ko voilà ñun ñu noonu benn bi rek moo jëm directement waaw bi nga xamante ne nag moom mooy hôpital région xeer yi ak tàkk-tàkk yi nga xamante ni moom moo nekk ci dëkk bi kon mbokk yi yéen a ngi subi en direct ci 24 gis ngeen li nga xamante ni noonu la dëkk bi yëngoo euh, ku ci nekk rek euh, di manifester yi nga xamante ni noonu la gis ngeen euh, dëkk baa ngi non xamaguma exactement. c'est le reporter. Hmm. concentration baax na. maa ngi nii ah bu dee concentré wu ñu rek fay na lakk. non non non non léegi léegi lakk ci fay léegi nag. mooy Babacar. Thank you. bàyyi nii ku ci nekk yaa ngi manifesté exactement kenn xamul exactement ah, lan moo waral nga taal li xam te nag moo dëkk bis daanaka booy yi fépp lañ taal fii yëpp lañ taal mbedd mi na mu jëm mbedd nga xam moo jëm hôpital dina gis ngeen mu ngi noonu tàkk-tàkk gis ngeen ah, ngeen man ku ci nekk yaa ngi gis nga eh, booy ñu ngi taal dëkk bi ngeen ñu ngi taal dëkk bi nii. tas na tas personne bi nga am. dafay jël ñëpp borom kan la. kon gars yi tëj nañ ci ñam